Euh, non crise bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu sous-entendre assemblée mu ngi doon def ay délibération conseil constitutionnel mu ngi doon def ay travaux au nom de la séparation des pouvoirs et selon l'article 92 et la loi organique euh, qui organise le fonctionnement du conseil constitutionnel les députés de l'Assemblée nationale mënuñu déglu les juges. waaw mais Maïmouna les les juges ne sont pas s'il vous plaît les juges ne sont pas obligés. de déférer à la convocation waxuma la juge sax Ousmane Sonko teg nañ fi commission parlementaire demul déférer à la convocation. waaw mais Maïmouna et commission boobu mënoon na def ses travaux euh, sur une durée. de de de de six mois. tout au tout au plus. xam nga wax ji mu ngi ñuy donc ana crise bi wax ji mu ñuy jël suñu en réalité. non ana non ana crise bi laa wax. ana crise bi entre deux pouvoirs. waaw mais da da nga da jëkk danga nga cest dire que da nga danga da nga tontu sa wax. ana crise bi da tontu sa wax ba noppi doogaa laajte sa laajte. da tontu sa wax doogaa laajte sa laajte ni nga tontoo sa wax mooy da nga jàpp ne amuñu droit def ko. loolu nga wax. amuñu droit def da nga ne assemblée amuñu droit def ko. non assemblée mënuñu déglu juge. les juges du conseil constitutionnel waaw mais Maïmouna bu fekkee juge constitutionnel nga nga wax ma. man nekku leen déglu man man nekku man man du ma juge constitutionnel du ma juge de la constitutionnalité du sama spécialité. waaw mais y a des articles qui organisent le fonctionnement des institutions les rapports entre les institutions moo tax ma la yaa yaa lépp suñu loi daf ko moo tax ma la daf ko daf ko prévoir ma ne la y a eu un moom laa la wax ma ni la assemblée nee nañu mën nañoo déglu ku ne ñeneen ne mënuñoo déglu ku ne ndax nañoo déglu juge yi waaye li am ba des mooy mais constitution bi moo ko wax assemblée nañu wax lu leen neex bu leen neexee ñu ne dañuy déglu juge yi mais mënuñu leen déglu constitution bi dafa am nu mu organiser les rapports entre les pouvoirs mais mais dinañu déggoo dinañu déggoo maag yow encore une fois ah dama ne dafa am ñu ne mën nañ ko waa député yi ne nañu mën nañ ko ñeneen ne mënuñu ko loolu laa wax te looloo am ci seen ci seen digg y a le texte fondamental qui est looloo am loolu laa wax ah. ma ni problème yooyu laata muy am am na problème yu ko jiitu mooy problème yi euh, parrainage yi mooy problème yi ñu nga xam ne dañu ñëw ñu ne leen dañu modifier seen clé USB mooy problème ñu nga xam ne nangu nañ ne candidat lañ waaye dañ ñëw ñu ne leen nekku leen ci loolu am na fi 2019 taxul ñu reporté am na fi 2019 taxul ñu reporté élection bi may mun a encore une fois dama ni la benn problème rek amul problème yu bari moo am ñu reporter élection yi léegi reporter élection ñii foog mu am ñii ne d'accord naa foog mu am ñii ne d'accorduma woote dialogue foog mu am ñii ne d'accord naa foog mu am ñii ne d'accorduma président de la république mooy njiitu réew mi dafa am responsabilité bu rëy rëy ak fonction bu rëy rëy moom mooy ni ko ni nga ko waxee moom mooy veiller sur le bon bon fonctionnement des institutions moom moo jël moom bu ko assemblée waxee ne dañuy dañuy dañuy dañuy voter report moom moo il a pris acte il a pris acte ne baax na dégg naa leen